de son invitation. Le cœur de Kermasal est venu de Rangoy est venu spontanément avant de répondre à appel. li ñu mën a wax daal mooy cancer moom ku yóbbu xam moytu ko. cancer dina dal mag dina dal gone dina dal dal jigéen li ñu a xam mooy cancer de l'utérus ak cancer du sein mais góor ñi am na beneen bu leen mooy cancer de la prostate. comme un mortel ñu koy tëjee et puis dañ koy def la tarification moo tax ci man na ngay defee ay effet POTA POTA bi de analyse de booy de POTA lu xool sa la nekk parce que POTA bi nga entraîné dafa bëri lool.

yéen tey gendarme yi sapeur pompier mag xale góor yow doo bàjjal yow moom maam di cancer cancer nag dafa bëri ay xeet am na cancer de muy dugg si moom cancer de sa am na am na mu ko da toog laaj beneen cancer boo xam ne dana ko laaj tuer tuer moom mooy cancer de la prostate fekkee góor gi donc dafay dem góor gi cancer de la prostate dafay dem góor gi dina rendre ay beaucoup de pathologie dina dem ba jusqu'à l'épuisement opération tamit ay cinquante pour cent de luy Wow, dia daan begitu cepat. Wow, begitu cepat ceeb saar 你是谁嘛啦？